vision à long terme suñu objectif à court terme bi lan la ku dugg ci école bi war nga gis ne une partie libéré ko tey te ci ñun loolu moo ñu tax a jóg tey te incha balaa ñu fiy jógee lii nga xam ne suñu doolee foofu la yem dinañ ko def moyen terme mooy lan fexe au fur et à mesure ñu génnee ñax mi moo xam dañ koy lakk moo xam dañuy am yëpp du moyen génne ko. long terme mooy lan mooy fexe ba ñu parler école bi mu nek espace de loisir également ku ne xam na ni koñ bi manqué na espace de loisir espace détente et pourtant école bi yaatu na bu ñu libéré won ñax bi ay ASC bokku jëf xam loolu la direction di xam ba tax bi programme bi ñëwee ñu tàllal ñu loxo lii nag dafa ëmb lu bari parce que mbirum santé moo ngi ci li tax parce que ñu ngi si nawet barax yi nii lu ne mën na cee nekk yooyu bari na bu ñu libéré woon ñi day bari tax vraiment yi ci woon dëkkandoo ci luy xaw maa ngi leen di ma ngi leen di ngeen ko xam après daal waaw kon lu sigi lu sigi man de maa ngi leen di woo Tambacounda seen doom seen xarit moo fay ñëw la seet mi si di jóob Tambacounda ko baayam ñëw na da ko yaayam. fii comme nii dama neex. wala fii di Tambacounda Tambacounda ñëpp a ngi waay. bambara yi. wala fii di. dëgg dëgg ma leen di wax si thème bi fee. kon loolu. wala fii di. dëgg dëgg ñëpp naan ma ma ma lan mooy xew. maa ngi. wala fii di. I say, kill it. dama monsieur Simir dañ koo teg tànk moo tax moom ñëw al dama monsieur Simir al dama bokk lu def dañ koo teg tànk laa jigo góor wax tey waaw man maa ngi tudd Mamadou Abdoulaye Diouf di délégué de quartier de unité 13 Parcelles Assainies Kër Massar 2. Ah, papa yi naka nga gisee problème bi nga si ban impact la def si seen dëkkuwaay. waaw ah, damay mana ren bu waree wax naka laa ko gisee damay wax ne ndox mi daf ñu jàng sax ñu waa agriculture ñu passé à ça yaakaar nañu soxla wax dëgg yàlla. est-ce que état eh, bi ñu ngi ci def ay jéego. état bi ñu ngi ciy def ay jéego waaw mënu ma bañ a wax dëgg yàlla waaye jéego yi rek la ñu problème. Everybody very different. bon kita bi def na ci li man population yi def nañ ci li ñu man association jeunes yi def nañ ci li

parce que quand on ay réew yoo xam ne dañoo am doole mais allez aux États-Unis des fois day am inondation allez en Inde day am inondation allez dans certains pays européens day am inondation man na yoo xam ne moom man man si mën na am léeg am. par exemple jigéen nañu bassin de rétention comme fu ci toll ba léegi am na ay nit ñoo xam ne ñoo fi dëkkoon ñoo dem bàyyi ñu seeni kër fii loolu dafa metti liggéey bi ko dee jël sa tabax sa kër te après tu es obligé na trop matul am na si

comme mairie nord ak ah, euh, conseil départemental est ce que ñu leen ñu ngi ñëw si yéen di xool seen problème wóor na dama nekk timide dama nekk timide timide nous portons beaucoup d'espoir sur euh, l'actuel maire li nga xam ne suñu doom la école bii ci treize da jànge moom sama doom fa bokkoon classe man ma déggee ne moom la ñu dama sudah mundur. मैं हेगस गेमस yan Israel biyu ta Israel ba su fati ke hukuwa Israel biyu ke fasirin yurba kala in gwamnati waranta a suno da tafiya da yana jam da ta ñu ak man seen yéene parce que nañu lay noo ñu ma ñaar wax la ma nuyoo xam ma ne man papaam la xam na ko mel noonu ah gën ma ko sant ko ni ñu ci war a def dafa war a mën a def ko deful xëy na xam ay gàllam ko mais de le premier responsable au regard message ngay président de la République Le message que je lui envoie, c'est que je Maintenant, c'est dama nekk ci boppam à politique. tout le quartier en témoin. je n'appartiens à aucun parti politique je suis un citoyen libre qui veut bien pour son pays alors c'est pourquoi je dis qu'il a travaillé il a fait beaucoup de réalisations même le Sénégalais mu ngi mais ne pas pas rendre. et pour nous qui passe à une unité traité. na fi gën a yokkaat la ko gën a terminer par sans rendre hommage à Madame Assome Diatta qui a beaucoup fait dans notre quartier bu ñu amee problème indi na fi bataille yi machine indi fi xaalis ak yeneen ak yeneen ak yeneen bataille yi def na ko alors et je sais que ndawam la parce que ce sont mais euh, Euh, euh, ban conseil ngay jox euh, jeunesse bi nga xamni ñoo organiser li ñew ci école bi di ko set setal ñam noonu jeunesse bi nga xamantene ne ñoo organiser set setal bi di japp ci liguey yi ban conseil nga leen conseil ma présence est assez significative kontaan ci ñoom seen action ak seen yéene parce que li ñu la doon xaar yéen ñaanal yalla yalla may kàttan ñu réglal ñu problème yi nga xamne ne moom fassé né fas surtout bénéfice après ñu doog wax leneen di leen féliciter par anticipation di leen ñaanal yal na leen yàlla jàppale yal na leen yàlla taxaw te bu ñu defalee lii tax leen ñaanal yal na leen yàlla fekk. ñu ngi lay jaajëfal merci beaucoup. merci. bon euh, waa Kër Massar.

donc euh, nous avons aussi ici loxo comité directeur bi aussi ñu sédalé ko képp ko xamante aussi euh, mu ngi ci biir ASA e bi. Euh, en parallèle aussi di nuyu particulièrement aussi l'organisation organisation Make Sense maintenant par le biais également de Dame Cham et de Massissé donc ñu ngi leen nuyu bu baax di remercier encore une fois di leen wax amuñu sen fay ñu ngi leen pour nous gëna and ci liguey bi donc ñu mëna jëmmal li nga ay développement durable euh, aussi tamit ñi nga xamanteni bayiko nañ comme si yenn gox yi nga xamanteni ñu ngi nek aux alentours également de la l'ASC Bokk Jëf particulièrement les quartiers 12 euh, ou bien Daaru euh, unité 15 etc. donc ñu ngi leen di nuyu bu baax di nuyu aussi tamit wa Ajuster également par le biais aussi de Ibrahima Seck ñom aussi tamit teew nañ fi mu nek aussi tamit ben association qui œuvre dans le développement euh buñ ci joggé dañuy ñëw juste ci euh, projet bi nga xamanteni tay mom moñu animer parce que ñun dañoo woote ASC e. kàddu gi nag mu nekk kàddu goo xamante ni ñu ngi koy beral képp koo xamante ni yàlla dogal na nga nekk ASC e. nga nekk ci comme nekk gauche nga lancé wu ci initiative bi comme lancé gauche ñu ngi lay woo à ce que nga promouvoir un développement durable maintenant dans notre quartier que suñu ASC e yi ñun ñi ñekk si euh, ñun ay ndaw lañ am na fenn foo xam bu fa tolloo ñun ndaw rek ñun ñoo mën a liggéey par exemple fi nga xamante moom mooy suñu dëkkuwaay euh, ñun yóbbu fa fi nga xamante ne mooy suñu réew ñun ñoo ko mën a yóbbu kanam kon donc ma ci lancé encore une fois toutes les ASC di ci woo aussi tamit euh, association yëpp nañ jéem maintenant investir dans les associations maintenant ak aussi tamit mu am seulement benn contrepartie mooy le développement donc ça à dire benn contrepartie boobu lañ ci am muy par exemple le développement de notre localité euh, di woo aussi tamit maire bi bien vrai que aussi tamit contacté nañ ko moom ak yeneen autorité yëpp yàlla dogal na gisaguñu leen jusqu'à présent

te yar yooyu nag dafa commencé ci bir kër yi dem ci école yi dem ci mbedd mi donc euh, wajur yi nga xamanteni aussi tamit ñom ñoo yor seen ay dom nañ leen jéem tagatat bu baax ñu wat xel bu baax également ci école yi ASC yépp maa ngi leen ci wo di ci woowaat également wa zone beeg wa ODCAV ñom ñëpp dañ tagatat xalé yi ci école yi parce que éduquer un enfant maintenant bon sauve une société école yi c'est une situation baaxul particulièrement bi nga xamanteni mom lañu nekk situation bi baaxul nekk na situation bo xam bu doy war la loo xamante ni warul sax am fi nga xamanteni ay doomu aadama ñoo fay nekk rawatina bërëb boo xam ne ci ciy xam-xam bu fekkente ni nag dañoo bëgg promouvoir un développement forcément ça va passer par euh, par par l'éducation il faut que éducation bobu jox ko gëddëm te éducation bobu nag buñ ko koy jox gëddëm aussi que il faut aussi école yi tamit ñu am benn promotion bu nga xamanteni ñu ngi leen koy defal promotion nak dafa commencer ñu défar maintenant école yi mu am ay cadre de vie nga xamanteni day attirer ñi nga xamanteni ñom seen ay xal ak seen ay xalaat nekkuñu woon par exemple ci li nga xamanteni mom moy mooy moom mooy nekk si jàng ñu mën leena duggal promouvoir l'excellence pour que demain maintenant ñu am maintenant un Sénégal meilleur voilà euh, ci loolu nag aussi tamit dañ ci aussi rebondir encore une fois que ASC aussi tamit nekkul ci volet boobu rek lay nekk comme ni ko chargé comme waxee donc day yëngu ci li nga xamante ni moom mooy sport comme ni ñu ko gënee xam sport nag bu ko large na donc ñun li nga xamante ni moom moo ci nekk ay ambition bëgg nañ ko see aboutir matal ko ba mat maintenant promouvoir développement culturel bi et que ñun ñu nous avons écrit un projet de développement communautaire projet bobu nak ñu ngi ciy woo képp koo xamante ni dogal na ngay autorité en commence par le président son excellence Macky Sall ñu leen ciy wo ñom ñep ñu ñew jappalé ci ak ñu ñu mëna ki wër wér nañu ci jappalé ñu mëna a liggéey parce que amuñu ci benn contrepartie faruñ fenn amuñu kenn kuñ ci andal moy lan ku ci jappalé ñu jappal ku ci jappalé ñu liggéey ku ci jappalé lu aussi tamit dañuy liggéey ak moyens yi nga xamanteni mom lañ ci am comme comme bi nak nekk fi doole ji nekk fi mais dinañ ci jëm ak li nga xamanteni mom moom ci nekk as new donc euh, may ma leen remercier waat encore une fois di remercier euh, wa nité TV donc euh, di remercier Singo di remercier également commando ak staff bi nga xamante ñoom lañ andal ñepp ci liguey bi donc euh, di len jaajeufalat encore une fois di len wax euh, jërë ngeen jëf di len jox dal di di dajé aussi tamit ci yeneeni i événement ci yeneeni programme yu gëna yaatu aussi tamit di ci wowat ASA yépp di santat ñepp di wax alaykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf merci Thank you. DJ buka Tagowai. Eh, woi. Nagor. Asik. Kamu yang baik? Nah kamu.